Doro Gueye Sidi Ahmed Mbaye ak Abdou Nguer tey xëy nañ gis journaux yu bëri titre ko mais apparemment nekk histoire bi nii la demee ki nga xam ne moom mooy Sidi Ahmed Mbaye dafa ne moom yoon na ay vidéo yoo xamante ne Ousmane Sonko ak Adji Sarr sekk nañ ci dara mu ne vidéo boobu lay jaay ki nga xam ne moom mooy Abdou Nguer Abdou Nguer jël 10 millions jox ko ki nga xam ne moom mooy Sidi Ahmed Mbaye pour jël vidéo bi mu defal ko ci clé ba mu jëlee clé bi mu dem këram mu yokku ci tus mu ne ko sëñ bi ciy fekk nga jàpp ne preuve bu amoon joxuñ ko juge bu yàgg waaye man loolu yëpp reetaanloo moom mu ne yooyu yaa dee woo Sidi Ahmed Mbaye mu nekk mu ne ko boo koy mais li ci gën a xolom nekk kii di Abdou Nguer ki ko yónni moom mooy Dóoru Gueye Dóoru Gueye moo yónni Abdou Nguer maanaam Dóoru Gueye moo génnee dix yi jamono ji nag histoire bi dafa mujjee ca plainte instant yi nag nee na ñoo ngi wër ci di Sidi Ahmed Mbaye suñ ko fenn buñ ko woowee duñ ko def te sax li ma leer ba leer moom mooy même sax laa la wax bu gisoon Sidi Ahmed Mbaye du mujj fenn naka nag Sidi Ahmed Mbaye lu mu xam lépp ci complot gars yi seen junni xel xalaatul di ko tëj kaso dinañ ko jéem a régler nëpp nëppal ko plainte bi sax nëpp nëppal la gars yi bëggoon def waaye journaliste yi nga xam ne Sénégal ñoo gi fu nekk jot information yi ci domaine bu ne moom ñooy jot information yi